delloo siyaar bu wér waaw ginnaaw ñu sant yàlla rek di julli si rand bi sant suñu ñaari waajur xama di sant mbooloo mu teew fii yëpp waaw di sant sama gaay bu baax xama waaw ku si mel ni gaay yi ñoom caru xay xama ñoom soro ñoom mbay ñoom pap si Moussa xama gaay yëpp daal bilaay su ma limee rek mooy loolu damay jum quoi waaw instant bi maa sama koñ fii foora fii sama arène waaw sama bërëbu liggéeykaay waaw waaw maa ngi jàmbaar yi la pare bu yàgg billaay wallaay instant pare nañu bu yàgg pare fépp kay ar bi rek instant moo ñu waaw ko xam naa bu baax kooku du dërëm billaay day xaañu nii rek xam nañ ko bu baax waaw kooku du dërëm billaay wallaay nga ni soxlu ma ko xam sax c'est que nu mu demee la rek billaahi mais yàlla xam ne du mag moom sax waaw du mag moom de bugguma seetaan làmbam bi làmbam man seetaanu ma ko mais man maa ko buggul seetaan billaahi leen nag laay xaar le 15 ak jaamu xama ñu daje estade ma xool ko ba xam moom loolu la ma mënee ba xam lan la maa ngay seen nag maa ngay gis si groupe bi ne muy rada di bëril wax nan ay Alioune loo mën a waaj na nga waaj. mbëre xoolal fi bu baax nekk entraîné na nga liggéey da ngaa toftoo ba jël sama avance bu boobaa ne nga xam ne ni nga lu tax ngay jël sama avance naa la ko woon. incha allah ah xëy na nu mu demee rek am na si droit quoi xam nga ne si groupe bi di wax mais maag moom bu ñu taxawee ne pire. billaay wallaay boobaa dina xam ni <laughs> dina xam ni doomu ñaareel la nga sëgal le billaay wallaay. waaw baax moo ma mën baax na bu mu wax lool billaay mais baaba jour wa rek gisante wuñu man soxla ma kaa gis sax baaga ba jur combat bi rek billaay jour combat bi dinañ xam lépp dëgg waaw na la fa demee nag mais yàlla yàlla suturaal rek te gëm naa ne yàlla dinañ may ndam quoi si kawam incha allah xaw moo ko de mais dama kaa gis photo rek mais xam naa ne moom ki ma gis ni mënu maa daan kaw mënu maa yëngal sax ah en tout cas daal xaw ma de mais mënu maa yëngal billaahi moom na jël lépp fekkee moom ak gën njool moom a ëpp poids xam nga na jël lépp naa ko daan rek waaw. Jackson Petit Niang na waaw buun yëpp dajale ñëw waaw na waaw buun yëpp. dégg nga voilà ñoom kirikou ñëpp a indi billaa wallaay xanaa gisoo kaw sa ginnaaw caatu xaay moom indi ak ñoom Zéba Fall ñoom Billy Boy ñoom Zos 2 ñëpp si biir wallaay gaa ñëpp si biir ñoom caatu jolof nga naa man nii baa ñu wallaay dëgg ba de la waaye yow lamb dër bi la nga la bëre duñ ko may dara. du ma ko may dara. fu mu taxaw ma fekk ko. comprendre nga fu taxaw ma fekk ko foofu naa ko bëreloo jàpp ko daan ko yëkkatiwaat ko ma naan at bi suufliwaatal ñu bërewaat à zéro ma jàppaat ko daanaan ko mën nga ne maa ko mën fuuf. billaa wala maa ko mën kii man lu may du lu may bëree xajul si kawam. laay laay la maa ko mën fuuf kii dama kaa xool dama kaa gis si photo bi ma xam ne maa ko mën billaahi daa ko daa ko bëre ëpp ko sañ-sañ ëpp fit yaa ngi dégg ëpp ko fit si biir géew bi ar bu ne pir balaa ngay xam ne baal bi ar bi suufle naa ko bëreloo ba mu xoox dem si kësam may ko ndox ma woor ko mu ñëwaat waaye nag ceer bu nag booy ma yëpp nañ ñëw billaahi. na gaa yi jóg ñëw waaj làmbam moo ay mboo xam. voilà na waaj lépp lu mu xam mooy loolu. ñun duñ bëre lu yàgg. dëgg ma naa combat bi waay yow. dëgg ma naa fu mu taxaw ma fekk ko foofu. du ma gaaw ruus bëre maa laay wax xool ma fi bu baax. xool ma fi maa loolu yow laay waxal yow boo yaakaar ne làmb ji yaa ngi. dina yomb waaw dina yomb si yow yaa ngi ndax sa bopp yaa ngi dégg. di nga bëre waaw di wax baaxul sax amaana nu mu demee la sax. billaay wallaay waaye la fekk da ngay xaar. waaw jërëjëf bëri nii rek. gaa yëpp a taxaw teew si barke Alxuraan kër yi baax na Mafia bi fekk la foofu rek. noonu la demee ba baax Thiaw Xir bi la fekk foofu. xam nga bu baax nag lu ma la wax. waaw. billaay wallaay xam nga bu baax lu ma lay wax. amul yooyu de barki sëñ Bamba. amaana nu mu demee la sax moo tax booy bi di ko jël bërëb boobu xamul sax nu mu demee moom moom ba mu commencé bëre ba léegi musul bëre ku mel nii te amaana wallaahi arbitre su tiré ba arbitre génn seen seen seen géew ñoom ñaar nga gis victoire boo xam ne amaana musul am si làmb ji nii booy bi lu nekk si moom ñun xamuñu ko sax déwén la nañ bàyyi ba déwén incha allahu rabbi booy bi du ñu ak moom sax booy ñun dañuy faral si géej-géeg lépp si biir amaana xam nga di woo képp kuy dawal seret tamit si làmb ji nii dawal ko seret yi ñoom moom làmb ji yaa ngi comprendre li ma la Fadam suñu mag la moom tamit amaana lu mu jox tamit bëgg nañ ko xam nga te ñun amaana ñu wóolu nañ suñu mbër barki sëñ Bamba noonu la demee nag Ah. waaw moom su ñemee na gi. laa di la wax ne. pareel. yaag say mbokk. wër na maam Seera Fall booy bi sax du sax moog yow. yow maam yow yow coolee ñu boole rek. mais bu arbitre wàccee loxoom ñu jëlee la fa li ne si kanam ñun li sa dañ lay gém gém li nekk sa gannaaw. kan nga wax mu ñëw kiriku dañ lay daan bëre kiriku barki sëñ Fallou foo xam jëmal yaak say mbokk ñun Aliya kese la ñuy topp mafia sareet nga ko sekkal na xam nga ñëw bu baax dañ lay romb chaque jour ñun fépp lañu amuñu fenn saa te bii boo fi jaaree ñu gem la dañ lay jambal Dakar tubaab tooy xaba tël jël la la laala fee bente ñebi yoo xanaa dof doo doo ko dolli après ngay comprendre la kañ la ñu bëri la 15 le 16 nga xam ne lépp dëgg ñu ngi koy teel a def lépp. dem na Rouge Bordeaux yow la ñuy waxal. làmb ji nag amuñu si lenn luñ siy wax ngir xam rek ñun ñu wax jëfe lañ mëne am déet lenn lañ am luñ la gis bu la 15 bu la keesee ngir yàlla ak yonent bi rek taxawal nga dëggal sa bopp billaay wallaay taalaay lamb ji lépp lu siy neex ñoo koy def yéen seen booy xama lan ngeen am si lamb ji wax yéen waa buun wax ngeen mëne kon dañ leen koy bàyyil sa waay la la wax ay petit loo ak yéen bër yooyu noonu ñoo leen ëpp mafia fuuf ñoo leen gën a pare barki Serigne Bamb ñu dañuy pare avant billaay wallaay taalaay instant bis bi noonu lañ koy yàqamtee barki Serigne Bamb maa ngi dégg nag ngi nekk si groupe WhatsApp yeeg yooyu noonu di ndellu affaire yooyu noonu di dagg yaramam fii la buujoo ñun jembere lañ dëkk ragaluñu lu ñuy def fora li ñuy liggéeyee mooy suñu bërëb barki Serigne Bamba te lépp looy wër fora mi ngi fi fora yaa tout jàmm gën tamit nice yaa tout am na lépp barki alxuraanu karim ay pëtiloo ay yenn bëree ay kirikoo yi dañuy xaar billaay wallaay taalaay am nañ fi caatu xay am fi zos 2 am fi Billy Boy am fi Zé Bafal am fi caatu jolof waa kon ñooñu lu ñuy tiit barki Serigne Bamba noonu la demee nag am fi liis njaago doomu bi fi ay tàng ñaa nga nekk am na façon mafia bu nekk loo xalaat am na fi lenn la ñuy am lu ñu la bu la 15 ngir yàlla ak yonent bi taxawal nga dëggal sa bopp barki alxuraanu karim li ñuy entraîné du pour yow seen booy mbayaar maan yi booy mbayaar maanu buun mbayaar ay mbayaar maan lañ ñu dañuy mbayaar sax làmb barki Serigne Bamba bu dee da ngeen pare pour mbayaar nag yéen la ñuy waxal yéen booy buun yi yow laa waxal yow Rouge Bordeaux taxawal nga dëggal sa bopp boo laajoon bébé surprise doo dug si ñun barki Serigne Bamba ñoo la gën a pare aller ak retour loolu laa am lu ma lay wax na nga pare nag billaay wallaay taala yal na la yàlla may xolal waaw gudd fan ak fekkee ak tal barki sëriñ Bamba ñu jàpp la daan la jël bu set wecc ba amul benn werente kese jeex na ñun bu jeexee rek jeex na billaay wallaay waaw lamb ji nice ñun ñu ngi woo ñëpp sëriñ Serigne Bamba bàyyiwuñu keen amaana jàpp bi sax waaw bu ñu limee dañuy juum am déet waaw surtout waa Fora ñu ngi woo waa Fora bi yëpp waa marché bi ñëpp bàyyiwuñu kenn Saalum Saalum yeeg séeréer yeeg wóor na Serigne Bamba képp kuy xëy naan Aliou Kor rek waaw ñu ngi lay woo di rato sa jaakatu ngooñ yeeg ñëpp bàyyiwuñu kenn barki Serigne Bamba ay xaamidu zos Imodibo bëgg nañ nga jëndal ñu bolok yow Imodibo Amène Ndiaye barki Serigne Bamba noonu ron paki danti bàyyiwuma la fi man sóor yéen ñëpp bàyyiwuma leen fi barki Serigne Bamba te lay demee booy Rouge Bordeaux yow laay comme ni ma la ko waxee taxawal nga dëggal sa bopp war yàlla boo taxawee dëggal sa bopp lamb ji du am deux minutes mbayaar gi nag bu ko fàtte def ko sa bopp dégg nga lamb la derby lañ woote buun jàmm gën derby la musul yomb te du mës a yomb voilà loolu lañ am lu ñu leen wax ay bégaay yi yëpp ñoom ñëpp ñoom naes ñoom bu ñu leen ko waxee di dañuy jënd bu ñu leen ko waxul dañuy jënd am déet Rouge Bordeaux waaw yow noonu la demee nag yow gëmal sa bopp rek taxaw dëggal sa bopp barki Serigne Bamba làmb ji lépp lu ciy neex ñoo koy def billaay wallaay waaw di wax ne mbër loo entraîné na ko xeeb nag waaw ndax duñ mbër xam nañ ko bu baax a baax waaw li nga mënti entraîné li nga mën a yen sa bopp na nga ko yen sa bopp na incha allah rabi la 15 bu soobee yàlla arbitre moo la bàyyi si jéew bi lu leer laa la wax bu arbitre sifflé moom ah na la leer na moom ah ah kenn waxatu ko billaahi wallaahi ndax ñun champion la ñu yor dafa mën a bëre waaw xam lu muy def bu baax a baax waaw te lu muy àtte na pour yow nag waaw da la koy xamal ñun dañuy wàcc pour déwén moro ñu jël la waaw bañ année blanche sax moro ñu jël la mais lu ñu entraîné pour déwén lañ saara bi waaw ñun ñu nag mbër yi bëre bëre dóor la mais duñu du pour yow waaw di la wax nag sa mbër boo kiiru ko xaw ma incha allah bu soobee yàlla déwén incha allah suñu première bëre dóor suñu bëre suñu première combat arène nationale bëre dóor kiriw lañ koy bëreel waaw ndax mooy suñu adversaire yow da laa nii rek pour passe temps waaw mais lamb du du ñun ak waaw loolu lañ am lu ñu lay wax nag na nga waaj bu baax a baax bu baax a baax nag kiriku da nga pare yow moom di dagg sa waaw di leen nuyu yéen ñëpp ku si nekk ku si nekk ñu ngi lay jox sa tur ak sa sant ak sa wàccuwaay ñii toog nii booy Rouge Bordeaux yow na booy yaa ngi poqaleeru di dagg sa yaram ñun baay ñun ay jàmbaar lañ ay liggéeykat lañ ñun baay làmb ji xolal nu mu demee moo tax ñu siy dugg ñii moo tax booy dugg si yaa ngi dégg mais booy bi jàmbaar la manqué wul ay xaalis ba tax muy dugg si làmb ji mun bëreem nat moo tax muy lugg si làmb ji bu jour ba di nga xam ne yow lépp dëgg la billaahi wallaahi wa taala yow Kurikou yow moomu laay waxal boo bi na ko andi boo paree nga wàcc si stade bi supporter yi ku si nekk ngeen bu bëre naa leen wan ni yéen booy doo leen dërëm a hayda saxada bo hayda faxada bo hayda taxay ta hayda yu mbaxte foog saxay bo hayda pa hayda yu xat xada bo hayda fe hayda bo hatta ya xat boko fo hayda si hayda pa do hayda ah ah Rouge lu lay wax dafa leer Rouge Bordeaux waajal ak loo mën a wàcc sa ak say mbokk combat bi suñu làmb la booy bi yoonam neesul lu nooy làmb kon ku la fekkee instant yoo xam lépp dëgg la waaw lu lay wax na du sori quoi waaw waajal dégg nga la wala lay pare nag kirigu na nga waaj na nga waaj Rouge Bordeaux ku la jàppale yoo xam ne tàng njàng yaay nii waaw jàmbaar yaa nii na sa ginnaaw noo la gën a pare aller noo la gën a pare retour ay ak kirigol bisimilah ah ah lu ñuy wax moom bëriwul moom Aliou moom suñu rakk bu baax la moom barki alxuraan billaahi dafa fonk bokk fu ñuy liggéeyee barki yàlla mais kii moom la ñuy wax moom bëriwul moom barki Seydina am xam nga ko jàppee bi wax lañ koy def mais Aliou moom ah barki Seydina am mos a billaahi walaay moom fu ñu woo bu doon si boog Europe sax dañuy jaroo ñu dagg suñu passeport dem barki alxuraan xale bu yaru la la yàlla defal ndam nag si waaw ndox mu sabul guy si ba seen na ñoo gën a waa Morala nag waa Fora ñëpp waa biir Fora Fora ba mu fees barki alxuraan ñu xam ne lii ñu yow aye billaay wala taa ñëpp ñëw waa jembere ñëpp booy dafa waa aya ah, di saar waa Fora ñëpp waaw di rafetlu nekk instance bi trop waaw li yëpp Aliou moo ko waral quoi xam nga di si woo waa Fora yëpp waa Diamaguène xam nga sama waa dëkk Morola waaw maa ngi waa Morola yëpp si combat bi ndax Aliou xale la quoi xale la mu nekk si yoon la quoi waaw dañ ko war a jàppale. combat bi mu demee la quoi bii ak ak bee bokuñu bii gis nga gooy gune yi ni ñu ko waajee dañ ko waaj baax a baax booy bi nag muy nekk si di wax di ndellu mais après lay comprendre. booy bi sañu ma ko jiital muy muy hésité man du ma ànd ragal kii bu bu ragalee dama koy ren si put billaay wallaay tallaay ngem bi laay laay jël wut gas taal ko ba mu taal ko jël ngem bi ta taal ko mu bàyyi làmb bu muy si làmb dama kaa waxoon leer dama ko ne lamba ji làmb bu dee ragal la toogal bu booy boobu du ñu nag moom sax dafa am nu mu demee la rek non Jackson dégg nga maanaam Jackson Jackson Jackson moom Jackson Jackson day xaar ja caat indi du indi mbër ba pare mbër bi daanu man dama koy daan dama koy daan ba pare Jackson moom ma jël ko sax mbër ak moom waaw ñu wàcc ñu gem ko ñun ñun ñun suñu suñu niveau dafa passé foofu noonu quoi ragaluñu loolu boo ñu xoolee nga xam pare nañu fépp barke seen na xamet waaw la keeseet la ñuy xaar xam nga yàlla may ndam seedu guy waaw di si waa gars yi waa xam nga jàmbaar yëpp ñu jëm jàpp si combat bi ku si même waa Fora ñu woo waa Fora waa waa Diamaguène waa laa waaw séeréer morala ñu waaw mais dog mboy morala gëp pour xaba waaw koy ron xama aliya xamino xama no acnam xabari waaw ko andi ndam combat quoi waaw combat de laxta ni wacco quoi laxta ni wacce oyre no xam na rek waaw di woo si di woo gars yi tamit combat bi ñëw pare ñëpp nañu nañu xam ne combat bi ñëw pare ñu jàpp si le 15. waaw bëgg naa daal balaa balaa semaine bii di balaa semaine bii nekk nii tiga yëpp jeex te man am naa si yaakaar balaa semaine bii ni incha allah tiga yëpp dina jeex Omar. Omar balaa bëgg naa balaa duñ dugg esat ñu verte la yow li nga am ba mu li nga am si xaalis sa xaalis ñu verte ko bu mot sëkk incha allah loolu la ñuy def ak yow. billaa wala esat yi pare nañu fépp nag waaw di ko ñaanal nag yàlla may taw tawfeex may ko jàmm xam nga di ko ñaanal supporter yi boo yi fi toog yëpp ñu yëpp samay rakk lañu. man fii laa nekk di fii laa nekkoon di daaw saret Omar man lépp am fii laa ko amee fii fii laa débuté fora fii lépp lu ma mën a lu ma mën a am si àdduna fii laa ñëw fora fii nii du dama daw billaa wallaay talaay du ma daw làqu man fii laa dëkk noo la demee man ñi ñoo ma yar man waa Fora ñoo ma yar waa Diamaguène Morola ñoo ma yar waaw maam fi nag ay rakk yu baax boo yoo xamante ne bu ma jógee rek dañuy jóg topp sama ginnaaw kon boo bi nii bu jógee rek booy dañuy booy dañuy boo dañuy jóg topp ko waaw di bëgg gaa yëpp toogaay bi xoolal dafa rafet xam nga soo mënoon nga fi ñëw nga fekk fi quatre personnes wala trois personnes mais gis nga li fi li fi li fi jot a teew nii xam nga ni carrément lii nii ànd bu yàgg rek moo nekk dëgg ànd bu rafet tamit moo waral lii yëpp depuis boobu la ñuy patienté di la xaar gud na trop mais xoolal gisoo gars yi ñëpp ñu ngi toog dafa leer di bëgg gars yëpp nekk waaw di rafetlu émission bi nag am na solo trop. waaw Mbayar Mané yéen la ñuy waxal ñun ay kàr kàr lañ. barki Serigne Bamba loo leen bëgg ñëw leen boo leen bëggee fas. teg ñëw leen fas ak fas wala boo leen bëggee xaay CFA ngeen ñëw barki Serigne Bamba lamb ji wax naa le ko na naa leen la 15 li ciy neex yëpp ñun ñoo koy def yéen ngeen def dërëm barki Serigne Bamba ay Jackson yii dañuy xaar. barki sëriñ ñun dañoo am lépp déggoo ñu naan la jàmm gën yaa tuur ñun ñu yomb na de mais antoon suñu ngont moo jafe barki salaatil faar te bu la 15 bu la 15 rouge bordeaux yow laay waxal bu la 15 di nga xam ne xoolal dëmm yi ndaw yi ñëw nañ barki salaatil faar ya surtout cat malaado yi tàng ñàng yi dañ la jàppee nga xam ne lépp dëgg la ñun duñu waxantu barki sëriñ bamba duñu waxantu mbayaar maan yi ma leen koy waxaat nag ku bëgg a mbayaar ñëwal foora mbayaar maan yaay ñëwee ñu fekk noonu la demee nag. bisimilah. bisimilah ñun Ndiawara la ñuy topp Ndiawara lañ am. waaw ñun Aliya daal moom ah ñun entraînement rek lañ ko sas. bilaay wallaay ak sas moo ko lu dul entraînement bis ba xoolal bilaay gars yi xam ne Kaafaas attaluñu bilaay wallaay. ñun mbër bii rek la am fu mu bëgg wala fu mu woo dañuy ñëw. bilaahi mbayaarkat yaa ngi nii bilaahi wallaahi heure bu ñu paree nu carte ba fajar bilaahi ñun ragal ñu lool sax. gërëmal bër gërëmal bër gërëmal waaw di woo gaay yëpp noonu la demee nag di mbayaar maan yi Moussa teg na fi 500000 mbay bu ndaw Sora teg na 1 million si lambu amaana Fall ndaw teg na si ron 50000 la teg mbay teg na 500000 boo yëpp teg nañ mbayaar maan yi bu leen fàttali lambu amaana bër da nga demoon làmbatu waa yaa ngi a daj làmb ji ni lu la ko jëlloo sax xamoo ko billaay wallaay boobu soo ko fekkoon fu muy nekk guddi guddi nga delloo avance mais amaana xam nga bay yéen a mbuus te bisoo su jotee nga xam lépp dëgg la ñu ragal nekkul suñ ginnaaw billaay wallaay suñ geesoo gis fanam duñ xalaat dara wër na alxuraan xam nga Baay Faal yëpp ñoo ngi leen woo si làmb ji demaan suñ rax moo xew la xam nga noonu la demee nag di woo ñëpp barki alxuraanu karim waa porte bouquet bëgg na ngeen jàpp si laam booy fooraay xam nga ñoon maas jaaykatu ngooñ yi ñoo leen di woo yéen ñëpp képp kuy sol ngooñ ñoo leen di woo yéen ñëpp xeebuñ seen dërëm ak seen i cent franc xam nga ñëpp teg booy bi loxo ëllëg si biir lépp ay jeex noonu la demee nag mbër waaw di woo gars yi xam nga waaw di woo sama waa dëkk aussi Morola xam nga di woo suñu maire Maguette mbay Maguette Mbaye waaw kooku moom dig na ma bolok ba pare xam nga di woo Yves Lamine Cissé waaw di woo gars daam baaw ah waaw laa ma sa laama la teg naa ko sa loxo waaw sama gore bi di laaxi c'est que nu mu demee la waaw di woo ñëpp daal ñëpp waaw képp kuy bëgg Alioune waaw mooy loolu ma leen di bu baax xam nga waaw di bëgg a bëgg booy jéemare yi xam waaw ñoom Seegu ñoom Alioune Tall ñoom Ndag xam nga ñoom mooy loolu ak booy ma ñoom Malick waaw ñoom sëñ Malick yooyu xam ñoom Mour Ndiawa ñoom Leus ñoom Gori xam nga waaw gars yëpp daal billaahi waaw ak booy fora yëpp billaahi jàpp si tigga billaahi wallaahi si tigga mooy loolu li si des après bàyyi leen ngi sama loxo waaw xam nga waaw maag booy boobu daal na seen xel daal barke Alxuraan Karim kooku arbi buy sifle ma ay mbokam billaahi waaw waaw di waaw di woo gaa yëpp ñoom Alsaan xam nga ñoom Maas waaw ñoom Zil xam nga gaa yëpp billaay ñoom Zil ñoom Bëri waaw ñoom Maxi xam nga Pape Si waaw jàppale laamu ji di Kabro Kabro lamb ji sa lamb la kabro waaw alsan gaa yëpp woo naa leen nag Ousmane Lo fàttewuma la waaw ñoom Ibu xama waaw gaa yi Samba waaw mafia bëgg bi mafia bëgg bi ñoom ël ël waaw waaw ak ñoom Abdoul xama waaw gaa yëpp ñoom Samba mooy lool billaay gaa yéen ñëpp woo naa si lamb nekk xama waaw billaay Kabro yow laay waxal lekk Baye Diop laa mu ji sas naa la si nekk dégg nga Alassane Gueye waaw Mass gars yëpp daal billaay walaay Ousmane Lo fàttuwuma la waaw loolu ndam siré na la fa demee nekk barka Alxuraan Karim gaay yëpp billaay walaay salib salib taxi basan taxi basan yi golo golo a caab jaakatu jaakatu yaapu jaakatu ndox yi gaay billaay walaay absa sama ginnaaw absa sama ginnaaw lamb ji si woo absa waaw suñu yaaju baax na billaay gaamu gaamu xama waaw ñoom gaay mooy billaay walaay Aliou Yare lay topp. di ko topp Aliou Yare lay topp. di ko topp di ko topp. waaw wol cag cag maani cag cag maani. waaw yow maa ngi woo cag cag maani golo golo yi ñoom Baye Zale xam nga ñoom Ameth waaw golo gi xam nga amale ñoom amale ñoom daamali xam nga mafia boobu yëpp xam nga noonu la demee nag fépp waaye di jóge xeebuñ sa loxo xeebuñ sa lool waaw nag nu mu demee la sax barki suñu bamba yow booy dinañ la wan ni lekkoo étage lekkoo ñànkatang booy ñun ay joot booy boora nga baax rek dinañ la wan ni lekkoo étage arrière tudd ma toog